jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen wax na nag ñoo ngi ci émission bu mag bi nga xamante ni mooy jàmmaarloo su ma nee jàmmaarloo xel yi dem ci fans yi su ma nee jàmmaarloo xel yi dem ci mbëri waaye mbokk yi tey ñoo ngi fii bii wasaare dalal fi ñaari xale yoo xamante ni ndaanaan lañ ñaari xale yoo xamante ni seen combat dafa taxaw ñu woo leen fii bëgg leen taaj waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom ci waxtaan ak ñoom ci seen combat bi nga xamante ni nii ci la ñuy jëm ñoom ñaar kenn ki nag mooy Kayta Kara Golf Gaynde sama sama gauche maa ngi fi am ki nga xamante nii mooy Washington su ma nee Washington nag xel yi dem ci jën yi fulli jën yi ñu waas ah kenn ku ne xam ne daal Washington moom daanaan la ci wàllu làmb xanaa ma bàyyi la ñu nuyoo ñu wéyal waxtaan wi waas nuyu naa la. ginnaaw bu ma sant yàlla junni yonent bi di sant sama ñetti waajur. di sant sama maam di sant sama yaay di sant sama pap di bëgg sama waa koñ fu ma bàyyeekoo waa ñàccu keer di bëgg àdduna di bëgg sama waa dëkk waa Thiawane Bambara di sant ñëpp sama mbokk xaadar yi maa leen di bëggee aywa waas Keita nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay Ouzin bisimilah ina wane yàlla jërëjëf sur Touba waaw maa ngi nuyu bu baax di sant sama yaay di sama papa. Hmm. di waa Golf fu mu jógee ak sama gars yi ma àndal ñëpp ma du wax gars na nag am naa combat nag ak ku ku bëri wax laay laay am naa combat ku bëri laay bëreel. <laughs> kan moo booy fii. loolu chaque jour ma dégg ko te damay bëree daan chaque jour ma dégg damaa bëri wax làmb noonu la ma xamee damay damaa man yow gënoo maa siiw ëpp ma tur ci làmb man damaa toj àll bi soo a ñëw Ndakaaru Washington ngay waxal bu baax a baax a baax da nga jàpp ne làmb ji yaasa la yaa ngi nax sa bopp arbitre bu sulee foo naa la fa fekk teg loolu méttee métti. balaa balaa balaa mooy ci combat bi bu arbitre sifflé balaa arbitre sifflé faaw ñu waxtaan tuuti la moo waral tur Washington bi. waa man dama doon benn ndaw rek nekk sama koñ. Mhm. di bëri mbabat di daan gars yi xam ma man avant maa ñëw ci làmb la sama tur siiw avant maa ñëw ci làmb la sama tur siiw mhm. sama combat mu desee une semaine sama premier combat semaine boobu la licence bi doo génn ma bëri jéego waaw Pape si ko tuddee. ban liggéey nga nekk. laa ne. Badajon nga nekk waaw fa laa ne. ñaata combat daan bu songaan ak bébé Zabu. Hmm. mooy sama troisième combat bu neexee yàlla victoire lay doonaat. lan moo la dugal ci kii. parce que maanaam kii dafa doon pata boo xam ne dafa ne ci làmb ji mënut a bëre. moo moo gën a nëb ci làmb ji moo tax ma jël ko kii kii combat yu bëri bi dafa metti day xeex day bëri kii ku ko jógee daan ñoo bokk ñooy ànd subaa ngoon nees bu rëbës ñooy ànd subaa ngoon xam naa ko bu baax kii bu bu muy bëree maa ngi toog ci mu mukaay mbay guy yi kon da nga koo xam tax ma dugg ci moom moo dugg ci moom xam naa ne tànkay baaxut koy laal muy xalangu moo tax ma jël ko kon yow da ngay wër lu nooy noo non waruma lu nooy dama xam ne kii du dara du dara man làmb daf ma yaakaar damaa bokk ci làmb waaw Keita ana waa golf gaynde waaw ba ñu ngi waajal bu baax. ñaata combat nga jot a def. quatre combat la am quatre combat ñaata victoire benn défaite. Hmm. ku la daan. nees moomu daan nees moomu daan. ok mais nga jël kii nga xam ne daa bay wax ba ci ay bagaasam. xamal a la rek. kii xam nga yow ah mooy loolu daal. kii xam nga déedéet mooy loolu fitam day maas <laughs> ñi ñemew ñu ma coolee fi ne rek. mais dafa jàpp ne moom moo ëpp doole bis bu simee ko ma simee ko barke Rusaay du ma ëppalee dara. Ouzin. waaw waaw. barki Cheikh moo karaama yaakaar kii nii nga jël bëre moom bële ak moom. nga jël bëre toog deux ans bëriwuma moom bële ak moom. yokku daal nga ma jël ko tooyal xaftaan bi. moo tax moo tax ba ma Assane Ndiaye woowee teg ma sa baat sax. non doo ci teg baat parce que da nga jàpp ne yaasa nga am. da jàpp ne lu nga am dafa nooy de yaa ngi nax sa bopp de ay pétal lu nga am barki maam Serafal billaay walaay boo jàppee ne lu nga am dafa nooy yaa ngi nax sa bopp man ay fonde lu ne laay reeree xaw ma xaw ma nag yow réewal hamburger waaw dama lay leeral rek da nga jàpp ne yaasa nga am amoo yaasa de combat dëgg nga am mbër dëgg mooy wax ak yow maa ngi soog am combat rek maa ngi soog am combat di tëdd di biddanti yaa ngi doog am combat di nalaw bay biddanti xoolal dama koy fàtte sax des fois arme na mi mbër ma ko ah ok mooy loolu kii kon kii loolu loolu boo ko defee loolu boo ko defee tiit rek moo la jàpp loolu boo ko defee tiit rek moo la jàpp loolu tiit la jàpp boo ko defee waaw kii mel ni respecté wu la de doo dégg kii buñ ci guddi buñ ko buñ ko wooyee ne ko ji tegu ci baat dafa jàpp ne yaa mu ngi nax boppam te bu làmba ja bu noo toll naa toll du ko raw doo ma pëlee dara te war bi sible naa dox sa kaw duma la daan la Keita Kara xam naa la bu baax gënoo maa siiw tey ji bu ñu demee YouTube boo tapee Keita Kara ay mike lañ lay génnal man boo tapee Washington ay ay samay combat lañ lay génnal kon nga xam ne ma tur ci làmba yow man siwuma de waaw siwuma de siwuma de kenn xawuma waaw mais incha allah su nga daana presse ma Sénégal yëpp xam parce que xam naa ko combat yi moom moom moom kos na ko jaay ay nit dañu may woo sax ki ngay bëral bëri na wax de man non. non loolu ah, la wax. am ne sax am ñoo xam ne sax euh, am sax koñom la dëkk koñom waagu ñaa dañu message naa ma yii ki ngay bëreel naa nga naam kër ga man yow man xamoo ma dëkk yow ñu la ne waagu ñaa la dëkk xamuñu fu ma dëkk man Dakar Plateau laay représenté fa laa dëkk xamul fu ma dëkk waaw waaw dama lay leeral rek ñooñu noonu di wax man damay def ay preuve bëréew man du ma du kenn du ma du ma daanul kenn ci làmba mais su ma ñëwee contre yow dinaa ci def full ak fayda duma la daan la xooli leneen ñooñ ñooñ di wax man sama bu ma waxee tamit damay bëri di jëf parce que ba tey daanoogu ma te dama koy sant yàlla suñu borom yaa ngi doog a am combat yaa ngi doog a am combat Kay Dakar xam naa la bu baax a baax a baax ba ngay ba ngay bëre maa ngi toog ci mukaay mbay ju yi waaw waaw dama lay leeral kon nga xam ne yow paa nga man xale bu ndaw laa 2002 laa judd waaw man 2002 laa judd barki Seydina Mohamed yow sama papa 2000 2002 laa judd kii sama papa tuuti la ko magee barki Seydina Mohamed xale bu ndaw man lu may wax nëbbu ma ko ragalu ma ko waaw mag laa mag nga dama war a am jabar war am doom yóbbu sama papa war am kër du ma xale de kon loolu la ñuy xamal ñun bu ñuy dugg ci làmb ñun bu ñuy dugg ci làmb bu ñuy dugg ci làmb fula ak fayda moo ñu ci dugal waaw kii kii fi tam day maas gisoon ñemul sax man xool ma man damay def stade di xeexa ay neuf personnes booy yoo xam nga mu baax a baax a baax booy nga àndal xam nañ lu may wax bu baax a baax a baax man kase du ma ragal dara bu ma namee ragal barke Roussaay ma teg sama ngemba sànni ko bañ a bëri waaw dama lay leeral. nag man musuma am combat sama tànk fekk sama tànk ginnaaw. mais nag kuy kuy xeex ak nit. waaw yow xam naa ne bu jàkkaarloo ak yow day war a yow hmm. kii nii kii nii. kii ay ndoxu tànkam ñoo jeex booy buy annéer yi daanu. bu ma ko jàppee mu xam ne lépp dëgg la. kii bi bu ko maawee. waaw yow su ko maawee lay comprendre su ko maawee. këy da kara yow mënoo muus ak waane ba ma ragal la yow wala ba ma am lu may xel ñaar ci yow bari combat bii nii dama la ciy gën a combat bii nii dama la ciy gën a pare financièrement dama la ko ciy a mais yaa ngi moom yaa ngi moom kan moo ëpp doole kii amul doole lii kii pompiteer baxal yu mu réere moo ko tolloo nii man dama entraîné ba caas du ñu benn barke rosaay te làmb ji bu ñu simee ko di nga xam ne liggéey naa ñépp dinañ ko xam kii maa ko dàq bëri foofu action man sama combat boo seetaanee ba nu muy jeexee kele yu may def bokkut ak kii seetaan naa ko Ouzin kii mënewul nen Ouzin moom dàq bëri moom ma gën a ëpp xaalis ma xa xa non mais nag mais nag kayita kayita kii bu la dàqee bëri ëpp la doole ëpp la xaalis moom làmb ji day jeex euh, laaj ma man laaj ma kayita yow yow yow loo mën waaw kayita loo mën daan waaye boo mënoon daan duñ la duma yóbbu la ardo ñetti yoon sëñ bi ñëw mënoo def benn action. kan moo ko yóbbu ardo ñetti yoon nee sa ko duma fii yóbbu ko ardo teg ko lu metti nga naa ma nii man gaynde laa du ma ragal. yow yaa gën a xam ne gaynde combat nga am. waaw yow nees waaw yow nees waaw merci wax nga ko na ma laaj nees nees mu toll noonu ponkal mu toll mu gàbbu dama ko bëggoon rey si stade bi soxor moo ma daan soxor ma mooma daan ba kii maam Serafa soxor mooma daan. bilaay wala kii rek kara yow mu Moussa Waane ba ñu ragal la yow yaa ngi doog am mu xam na sa góor kii nii mu wax sax. barki Seydina Mohamed bilaay walaay bi bu la jaralee soixante-dix jaral na ma quatre cent vingt barki Seydina Mohamed billaay wallaay talaay. mais la crime. na a bëre ku soxor ngay bëre. yow ah, yaakaar ma chaque man sama waa koñ ay jour kase ñoo fa ay ay. man ay jour man mel na maa fay mbër ay jour kase laa yor ñu yaakaar ma ci làmb. kon du ma dara waaw ah. waaw dama lay leeral man dama xam ne yow yaasa nga bu ma la jàpp la daan sa tànk yi baaxul barki dara sa tànk yi zuba zuba yaa ngi doog am combat. tànk yi am naa combat kay parce que wax ngay def. waaw wax ngay def damay wax. parce que signature contrat la wax man ak yow. kii dafa dama lay leer pour nga mën a xam. bu dee bu dee damay ñëw bëri ak noonu du wax kon da nax sa ba dama xam ne yow bu ma la jàpp di la daan say tànk baaxut kii kara xam naa la bu baax. man booy bu ndaw laa 2002 laa judd lamb ma yaakaar. ma dama lay leeral rek. yow sama papa tuuti nga ko magee. nga naa ma nii. doo dara bu ma la jàppee nga xam ne lépp dëgg la man yow. barki rusulaay billaay walaay talaay bu ma la jàppee nga xam ne lépp dëgg la. Ousseyn eh, Ousseyn combat bi bu. combat bi bu amee deux ko daanee sax damay woo gars yi ba bàyyi bëri man. damay zibile laa woo gars yi bi maa ne bàyyi naa bëri. su amee deux minutes deux minutes laa wax. nga teg loolu. kii fu ma teg loolu. non ah, yàlla baax na maa ànd sama gars yi di liggéey. billaay walaay talaay da nga da nga jàpp ne ñii nga àndal ñooy ñëw làmb ja bëre ñii bërew ñu de yow mii yaay dugg ci géew bi ñi ci ginnaaw la ñuy nekk. man ak yow ñooy dugg ci géew bi man booy wax man ngay xool wax ak man. mais waaw ñii dugg ci géew bi waaw. damaa ragal waaw waas wax ji li muy bàyyi kii bu la daanee ci une minute wala deux minutes. dina yéeme de mu def yëpp ngaa koy di toog plateau yow loolu ngay wax loolu du wax. man a yow suñu làmb mooy wax te bu neexee yàlla arbitre bu ciblé dinaa la teg lu métti kër a yow nu yow nu ma la ñemee mosuma ko ñeme adversaire doomu aadama la parce que damaa xam ne da nga nooy xaal yaa ko a ko raw xaal barke rasuy laay la doomu aadama la waay yow a koy teg xam naa ne yow dama la seetaan billaay wallaay xaal yaa ko gën a nooy du ma xaale du ma xaale xam la la xam la la ba nga daw ruy la ruy ruy la bu dee bu dee da nga yaakaar sa sa sa poids bii nii mun na maa jaaxal yow pompiteer baxal yu ngay reeree moo toll looloo nii mais du entraînement man dama entraîné ba ba toll nu ma toll. barki Sira Mohamed waaw waaw yow man sama waa koñ dañ ma yaakaar ci làmb di woo waa Dakar Plateau waaw bàyyi ma kenn ñëpp te combat bi ñëpp dañ ma ciy dooleel. nee la de bi dama a pare a lay leeral rek. yow yow ragal nga moo tax ngay topp ci ginnaaw mbër di xëpp ay gàllaaj. man topp mu ci benn ginnaaw mbër di xëpp gàllaaj man mbër laa mbëru sama bopp laa yaakaaruma benn mbër. waaw yow da ngay ñaanlu ah, parce que parce que ragal nga moo tax nga topp ci ginnaaw mbër di leen xëpp a gàllaaj du jeex du jeex fii bari nga mbër yoo xam ne yaa leen xëpp a gàllaaj yow xam naa la bu baax a a baax kay da garaa waaye ngi doog am combat yow boo yaakaar ne ma laa ragal yaa ngi nax sa bopp arbitre bu ciblé barki moom ser fa dama lay leeral rek waaw dama lay leeral pour nga mën a xam man du ma la may dara tous du la ko may xaw man xaw yow wax ñu bëri doo mën a wax parce que ku ngay bëreel faaw day wax. waaw nga wax. man booy bëree man <laughs> faaw nga wax. faaw nga wax man tey jii lii bu ñu ko arrêté woon ci làmb damay bàyyi làmb. ma xalaat ko amee léegi ah. waaw yow mu doo amee benn bëre man ñu ma bëree dama wax ba pare duma leen daan leen say morom dama bëri ak ñoom ba pare te ñoo la sut ëpp la fuuf ma wax ba pare duma leen daan leen waaw. mais boo jëlee avance avance Wassinto bii ni ma ko xamee nii. waaw parce que ay mbokkam dañ koy ne ku ngaam dafa bari wax xamul dara mënul dara te ñooñu mosu ñoom a seetaan moo tax bu ñu ko woowee waasin dafa dafa dafa dafa daw kontaan firi parce xam ne lamb <laughs> ji boo barke say mbokk bu ñu la waxee loolu yaa ngi nax sa bopp. parce que xam nañ ne derbi nga waaw kii maa moom. Mm-hmm. Ah, baa dëgg dul ak semaine kii rek. xamal ne xamal combat bi ma màkki la oh, ma kii waaw parce lu nooy da nga fii moo gën a nooy nag parce moo gën a nooy moo tax da eh. am man sax su waaye ñun ay mbër lañ ñun xam nañ ñu mu bëre nees mu loon mes man nees mu bëre nees kii na ma noonu ma ko waaye kii mën naa kaa daan parce man dama gëm sama bopp man bëgguma fii amul képp ku dugg ci làmb yor sa licence da ngay gëm sa bopp yow loolu nga yoon di wax yow loolu nga yoon doon wax ñun fii képp ku ne ci làmb ji da gëm sa bopp yaaw jaa sax dafa gëm boppam moo tax muy lekk avance di dóorante loolu noonu ngay wax du wax da ngay fii moo gën a nooy moo tax nga bàyyi laay biri si yaay nax sa bopp combat bi woo jàpp day yomb bark fii lay gën a tàngee parce que la may dara tous non maanaam kii bii yoon sax bii xam nga bee passé dañu bëggoon def open press affaire yëpp mooy loolu mais combat bi damay def mobilisation bu am doole. ba pare mobilisation bu am doole. ba pare ut sama orchestre boo xam ne ñoo may ñëw tëggal lu rëy. ñoo may tëggal lu rëy parce que combat bi dama dama ci autorité yi Dakar Plateau yëpp laa bëgg a woo ñu ñëw jàpp ci bu baax a baax a baax a baax dama cee bëgg a wane sama bopp parce que kii nii su ma ko daanee daa am fu ma yóbbu ci làmb ko daanee parce que poids lourd la mais poids boo xam ne du la yaram bi judduwaale la yaram bi judduwaale la. instant yii doon na sax barki maam Serafal billaay walaay talaay kii dama gëm ne su ma ko jàppee dama koy daan. parce que ñu ko sut ëpp ko doole foofu laa daan ci àll bi soog a ñëw Ndakaaru kon kii mënu jaaxal mënu sax daf loo xamante ni war na maa mën a jaaxal. ci làmb bu ma déggee kii nii dafa dafa leer ci kàttanu yàlla suñu borom ak mbaaxam. waaw. bu muy ñëw xuma. waaw yow bu muy ñëw ay grand grand jub kee dafa maa yëpp ay Cheikh Omar Mbaye ay Pape Niang xuma dañu naan boo demee rek man man man man ñu sama waa koñ autorité yëpp ma lépp ma yëpp ma teg loxo ñoom Maodo ñoom grand Issa Racky ñoom laay ñëpp ma man a bëre suy bëre ak mu xeex ndax mbër maay xeex mais kii booy booy booy bëre moom faaw nga wax man am njollaa kii kii kii am man am njollaa presque deux mètres laa kii bu taxee dëggal boppam ma duma ko bu ñu xeexee barki maam Serafal man am njollaa boo ma xoolee xam ne dama am taxawaay kii bu taxee dëggal boppam ma duma ko. barki maam Serap Fall te lu may wax dama koo gëm. mbaa mbaa mbaa doo ko saxal ay ay ay fii lañ jaar ma wax leen loolu te gëmuñu ko arbitre la ma fekk leen fu ñu taxaw duma leen kii amul lu may sikki sàkk ci moom. man kii nag yow kayita man dama am lu may sikki sàkk ci yow man du ma ragal loo ci mën a dégg daal mooy yow nga waaj ak say mbokk ndax xam naa ne waasinto mi Ouzin waasinto wax ji rek la su ko ma man nga bàyyi la ak ak ak lii rek nuy wax rek yàlla baax na yàlla baax na làmb ji moom làmb ji yàggatul yàlla nañ yàlla may gudd fan ak ñu fekke ko ñun ñaar ñëpp ba yàlla may ñu dat nga xam Keita Kara bis bu ñëwee làmb ja di nga xam ne Wassintor bi ma doon gis ak Wassintor xam ne mbër dëgg nga am mbër dëgg man làmb daf ma yaakaar a ñëw Dakar waaw dama lay a xam quoi xam naa nag xamoo ma ah, waaw waaw yow yow mënul doon sa combat doo dégg man nee la man combat bi man maa ko jëlee sama bopp nit joxum man maa ñëw jëlee ko sama bopp amul kenn ku ci ànd ak man maa ko jëlee sama bopp ma la combat bi bu la jaralee soixante-dix man jaral na ma quatre cent vingt barki rusaay billaay walaay yow lay wexaat parce que xam naa boo duma boo xeexee ma duma la boo bëree ma daan la mbër bu bëri wax ngay bëreel mbër bu mën a xeex ngay bëreel mbër bu mën a bëre ngay bëreel du ma la may dara. mu ne moom ah. waaw yow kay xeex moom gënal la kay dem génn. waaw kay rëkkalaa yow yow mosoo fee doon mbër mu daanu. loolu moom xam naa ci dara doon mbër mu daanu. non mais loo ci a dégg mooy. sama sama deuxième combat. sa waay day dara. kii doo dégg Ousseyn barki maam Serafal bu nekkee am na lu may tir moom yàlla bu ma jariñu man doo dégg yi bombardier sax bu taxoon fii ma war a bëri moom nii laay doxalee. parce que wérul ma ragal ku wérul di ku wérul dina encaissé bëri di daan. waaye dama lay leeral rek waxal waxu nit lañ la wax waxal waxu nit ah, man ak man yow ñu signature da ngay wax ci loo xam ne làmb ji jour ba mais bu ñu wax ngay ngay wiiri xam làmb ji ñëwagul moo tax quoi waaw làmb ji ñëwagul mais dañuy ah, wax waaw mais nag mais nag xam nga làmb dafa baax xas-xas loo yow mais kii daf maa ñemewul moo tax Ouzin gi boo ko ñemee bu waxee benn nga wax kii tey jii bu jàppee ne yaa salaam mu ngi nax boppam. billaay kii maa ko gën doon xale fu maa ko gën pare. kii kanamam bi pareegul. te naa la xamal leen yow mm. bi bi pareeguñu fi yi man a yow fu ñu daje estaat dina met si yow. barki maam Serap parce que du ma la may jàmm waaw nga ne ke da ñëw stade ma ne la eh, nga xulli say bët di xam ne nag am nga nii dama ne eh, nga xulli ma di barki maam Serap Fall barki sénaman billaay walaay salaay doo doo defee barki maam Serap doo defee dara waaw yow man dama ragal loolu. dama la wax rek man doo dégg man doo dégg ah. mais du kay tamit mën na barki Sénégal bilaay walaay boo paree léegi léegi ñu simee ko bëri ci karo yi. barki Rusaay ma daan la. barki Sénégal boo paree léegi léegi ñu simee ko bëri ci karo yi ma daan la ba nga doyal. waaw jërëjëf bu leer laa la wax yow bu saaku ceeb bu ñu ko yeboon ci ci orelu Touba bi ñi dem Touba. Ah. bilaay walaay ba nu ñu àggee Touba doo lekk benn benn pepp ceeb. man loolu gëm naa ko. jërëjëf loolu lay demee. yaa moom lépp gis ngeen mbokk yi nii lay demee ci jàmmaarloo woo ñaari mbay waxtaan ak ñoom waxtaan seen carrière mais bu bu bu boo daanee kii fa la la mën a yóbbu. su ma daanee kii. waaw ah xam kii xam nga rek kii bilaay wallaay du bi. kii mu daanee bi du ma yóbbu fenn damay dëppaat si si booyee rek. ba da nga bëgg a tëj gémmiñam rek. moo tax kii mënul tëj sama gémmiñ man kii su ma ko daanee da am daf ma yóbbu ci kaw parce que man damay mobiliser ay kaari kaar ñoo may topp ay mbooloo ñoo may topp yéen seetaan ngeen sama combat. waaw barki Seydina man ñun Dakar Plateau lañ dëkk ñun fa la ñuy représenté Dakar lañ dëkk xam waaw. stade bi doon jël oto la boo dañuy dox dem. ñun ñaata kër lañ dëkk Kousum Medina. Sandial jamono. Ah, booy du ma jël taal ñun fa lañ dëkk. barki maam Serigne Fall doo dégg damay dox ci mbedd bi ay nit di ma ne xoolal yow boo gëmee sa boobu champion ngay doon te damay damay daan mais doo ko may njuub bi doo ko may njuub waaye non fii dafa xaw a xat moo tax mais kii doo dégg kii bu pare woon suba suba suba suba suba barki mam sral su bëggee ñu daje teere gaal gi ñu ñu bëri man moom foofu mais mayal ma ko kiiru dara mayal ma dafa xat cóoru jub non cóoru jub cóoru jub mam sera fall dama laa gën a doon xale fuuf waaw non doo xale magum jëmm nga war naa am jabar war naa am doom duma xale de non doo xale magum jëmm laa non doo xale waaw doo xale mais nag da magum jëmm laa man ak yow boo heure boo eh, jàppee micro xamal ne di wax lamb lamb képp ku tàgg ngeen la ak doon waaw dama ne man man bawol 11 combats fa bëri 6 KO laa fa am. 6 6 KO laa fa am 11 combats fa bëri am fa 6 KO. nga naan ma nii. bëre door meen bëre door meen ñoom ñoom Mourou Mbaye yàgg nañu faa fekk bawol foofu ñu fay bëre kon kii xamuñu moo tax. dafa jàpp ne nii ab eh, ab ab yaasa la am. yaa ngi nax sa bopp. waaye dafa baax di wax rek. waaw yow doo dégg loolu loolu bu ñu ko boole woon bu ñu ko boole woon ñu bëre Dakar kon kon tey ñu ngi bëre ay grand combat. Ouzin waaw. kii lu mu am bool bool bool bool lu mu jël ay nag mu xalaa am man gileem laa jël. gileem lu kenn mësul jël laa si jël laa jël. yow loolu yow loolu boo ko waxee da ngay xumbal rek. gileem la laa jël yow loolu boo ko waxee da ngay xumbal yow sa kanam bi musoo mbabat barki maam sara sa kanam bi woo xam ne eh, mosoo mbabat gileem moom musuma dégg ko jël man damay damay dem adrien Senghor di dem terrain gaal gi barki Seydina Ahmed di fa bëree kii mu kii mu musul musul takk ngemb dam adressé nga wala terrain gaal gi barki Seydina Mohamed di bëre. booy kii nii kii de karaami eh. dara dama koo xam bu baax a baax a baax. te mu ngi doog am combat. xamoo ma de boo juddoo ba tey yaa ngi doog am combat. xamoo ma waaw. xamoo xam naa la bu baax a baax a baax. yow mi yaa ma xamul da nga jàpp ne fii moo gën a nooy feneen moo tax nga dugg fii. a nooy yow sama yaali laa lay jaarale boo toftalee sama yaali laa lay jaarale. billaay walaay boo laa lay jaarale. bu leer laa la wax. baax na faw nga wax waay yow yow booy yow yow da ngay wax yow bu na ma wax loolu non barke maam Tafal da ngay wax man sama waa koñ waa Sénégal waaw dama lay leeral ñun ñëpp hmm. ñun mu jëf laa xam non ñun ñëpp dañuy wax di jëf ñun ñëpp dañuy boole parce que lamb ji moo baaxoo wax waaw di wax waaw waxal kon mais dama lay xamal ne këy dakaraar boo tof toflee dama lay dóor nga daanu soo bëggee dégg-dégg loolu wax ju ñeex ji boo dof dof lee dama lay dóor nga daanu fii moom boo fi jógee waaw yow dootoo biddanteete ndax boo xamee a nga am te laay gën a bëri li gën a bëri kii ne ah, barki rosa billa walaay man soxla woon sax man seen tête de laa soxla woon yow kii de kan mooy seen tête de file man seen tête de ji moo metti rek waaw dama lay leeral lamb ji moo metti woon waaw rek lamb ji moo metti rek mais man man gars yi waaw déglu ak ardo yaakaar ñoo fa nekk waaw déglu leeral la lamb ji moo metti

mais nag xaal bi moo ñëw taxaw sama kanam dama koy xar léegi ma xool leneen barki maam xal bi xal bi de moom waaw yow ay sax de xaal nga barki àlla xaal nga xam du ko lekk waaw yow ah, am ay sax bi daa wala xaal la kii tànkay baaxut bi àndee daa du seetaan naa ko Iba Mar nen nen mu newu ko man ay dama fi cabaxal ay mbër tóori fi ay mbër ñu daanu waaw eh, gaan def nank rek waaw dama lay leeral xamuma kon barki maam sa daanu fi mbër waaye kii mu dëgg ko ma la am dëgg ko ma la am waaw benn victoire eh, benn defar eh. ma boo nee dama boo nee dama daanu sama ngemb sama ngemb musta laal barki Seydina Mohamed sama ngémb mës a laal suuf. yow sama ngémb mës a laal suuf. la ne sama ngémb a laal suuf. musoo daanu doomu kunun maa ko njëkk a daan Iba. Eh, waay jour combat Franc Bébé Saloum 2020 laa laa dugg ci làmba. ma daan doomu kunun jour combat Franc Bébé Saloum sama deuxième combat Thiatou Daouda Fall bi muy àndal ñoo bokk journée ñoo bokk fenn fu ñu toog ci mukaay ma daan Bébé Sabou bu Kër Massar mbooloo kii xamuma kon man dama toj àll bi onze combat la am fa six kawo waaw kon dama lay ne xamoo ma yow boo tey ne dama boo nee dama daanu Dakar kon xamoo ma man man xoolal waaye nga naan Ouzin man toj ma fenn toj ma fenn kenn xamu ma lamb ji moo métti moo tax ma jël la mais man ñoom ay ñoom gabar sin ñoom ki nga ba faat ñooñu soxloon ah, man ponkal yooyu soxloon waaw waaye yow ma du yomb laa la wax force damay wax waaye yow du la may dara <laughs> lamba ji la jaralee soixante jaral na ma quatre cent vingt barki Seydina Mohamed dama dama toog deux ans bëriwu waaye yow barki maam Sarafal man man dama bokk ci làmb man dama bokk ci làmb loolu mooy wane ne yow bokkoo ci làmb kenn xamul la man du ma toog du ah, parce que làmb dafa maa soxla ah dama déglu moom i xoolal moom mii xoolal incha allah mooy mu taxaar mooy dugal si lam mu taxaar lam xam xam naa moom siw naa ba pare moom siw naa. saa ni moom mooy loolu moom siw naa ba pare. yow ragal nga yow sama combat mu taxee Omar Sall nga woo ay xaaji guddi di ko laaj. waaw yow di ma di ma laaj kan mooy yow yaa ngi may laajte fu ne. mais yaa ngi may laajte fu ne mais. dama dama waaw dama lay leeral rek Omar Sall waxuma loolu mais dama waxuma loolu mais dama kaa dégg yaa fu ne nag fu ne nga may laajte yow xam ko ma ba tey de yaa may laajte xamoo fooy taxaw da tiit man du ma la laajte kenn man dama la xam bu baax barki seen moment bilaay walaay du ma la laajte parce que parce que man instant nii sama waa koñ dañ maa yëpp chaque guddi bu ma ma jox ay fondé lu luñ desal guddi jox ma ko ma ñëw kon xam ne combat bi jaral na leen kii lu dara nga naa ma nii. ñoo ngi may temps bi bu ngeen amoon kàddu yu mujj lan lay doon kayit nga tàggatoo. xaw man moom maa ngi jégalu man gars yi xam ne ma wax ko waa kii moom daa bëri wax. El Paltro di wax na de moom di nga wax moom. kii nii du ma il de El laa mais di wax nag di nag wax ma gannaaw fam papa la papa Aliou am naa combat ku bëri wax. di woo di woo waa Waalo waa Kër Massar waa Nimb xam di woo ñëpp di woo sama mbokk di woo te waa Fouta di woo waa Touba. du woo tam sama mbokk tamit ndax Baye Daawara ñëpp du woo waa unité 2 parcelle 1 26 di woo Ardo ah, ñëpp nag di di woo sama mafia Baye Fall yi ak boo dafa serif kenn nag nga xam ne gars am naa combat ak na ak na ku bëri wax tamit xam nga dañaa ne sama booy ay Ardo xam nga ñëpp ñëpp benn nañu ñëpp ñëpp chaque jour ñooy bokk nekk entraînement ñooy bokk dem stade ñooy bokk def lépp ñëpp ñëpp suñu borom yàlla ñu yàlla may ndam. Hmm. waaw di di ay safalaa sam di nuyu tamit sama seex yi sama ñaari seex yi Aliou Iba ñoom dañuy yëkkati ay waaw yaa am gën a xam du du la hmm. nu ko sama mafia bi ma kenn xam ma ay ñoom xaw ma di di man daal koo daal xam maa woo ñëpp daal di nga xam ne combat bi nag combat gars la. combat gars la combat Thiatou Daouda Fall bëriwul Ardo bëriwul ñoom ku ci ne seen bëri bopp la mm-hmm. moom na gëm boppam ñoo jàmbaaroo man ñii bëriwuñu man ak moom ñooy bëri man nag damay woo sama sama waa koñ waa Dakar palaatoo waa ñàccu keer koñ bu ma juddoo bàyyi ma leen waa Rëbës waa Sandial waa Sandial waa jamono kenn du ñëw di woo waa aselem commerçant yi man maay man maay mbëru commerçant yi waa mafia ma jaay la képp kuy jaaykat am milan maa nii képp maa leen woo waa ah. i million di ma jox bari ak man mbay waay bo loolu kay sabu ndax bool boowal ci ñoom laa yaroo ci ñoom laa màggee eh, eh, di woo ñëpp kii moom ah, waaw mais mais mais maanaam amul crédit mais ma xamal ne kii ñoo ñu muy wax bëréew ñu di woo sama waa koñ nag di woo sama mag papa di woo sama waa famille ñëpp ñëpp jigéen ñëpp sama sama waa sëriñ man xaaral naa waa Ndiassane di woo waa Ndiassane mais moom moo sànq bu ngay wax may nga wax mais mais moom moo wax ah? yow waxoo sànq xaar ba affaire a wax yow waxoo sànq xaar a wax barki maam sarafal billaay walaay di woo ñëpp kii nii amul sama beneen tànk bu bu anniyére fekk si ginnaaw barki man tara ma teg sama ngemb kii kii bu man tëddee damay nelaw instant nag sama waa koñ dañu dañuy commencé def mobilisation bu am solo booy dawal càq càq te lamb yi ñëwagul instant yi booy commencé nañ cotiser 5000 5000 démb rek am na benn maire boo ma fekk ma toog barki maam Serafal boolu mu xam am ne boolu ñebe la ma eh, andil kon xam ne combat bi dama dama ciy teg sama bakken parce que koñ ba la lu waay desal guddi gi dajaleel ma ko andil ma ko lu waay dajale kon tur sa toll nii man avant maa dugg ci siiw kii de karaam yi barki maam Serafal bu ma koy seenaan doon lu ndaw kii moom sans papa tuuti la ko màggee. mag la xam ne war eh, bi loolu. man mer laa mer kon du ma bëri spécial. kii moo tëri di moo tax ma jël ko. ma bëri waat ren. Eh, man loolu ci yow moo tax ma jël këy da karaam yi mais kii yaramam bi pomme guddi moo ko tolloo du entraînement barki maam Serap gis ngeen ñu ngi may signalé temps bi jeex na ñoom ngi may signalé temps bi jeex na ñoo ngi kontaan ci yéen di leen jaajëfal bu baax a baax di wax ne jàmmaarloo ni lay demee di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen mbër ci Wassare Lamb jërë ngeen jëf. xam naa wax wax dugal ci làmb ji mais ci làmb ji billaay walaay amoo comédien. ko. loolu liggéey xeeb ko. yow jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waa Ndo jërëjëf. Fatal waaw waaw waaw waaw. barke maam Seydou Fall bii lay wala talay. yéen bëri woo leen yéen mi ngi wax mun naa ko ñeent ñi bëri woo leen bu fekkee bi mooy bëri yaa ngi doog a am combat.